Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de quatre cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le la Santé et de sociale renouvelle à la population son appel au respect des mesures de prévention individuelle et collective.